jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek mbiram Sidy Diop ginnaaw bu ñu ko tegee loxo nag dal nañ ci fësal rek ay xibaar moom wéykat bi nag jamono ji daal mu ngi ci guddi bu bët setagul ginnaaw bu ñu ko placé garde à vue foofa ci brigade bu Hann Mariste moom Sidy Diop dinañu ko déféré nekk tey ji nag ci kanamu procureur de la république ci wetu tribunal grande instance bu Ndakaaru la ñu koy toppee rek mooy dawal oto te amul permis conduite amul assurance moom waykat bi moom ci jëmi boppam rek bi ñu ko daal di tegee loxo nag amul lenn loo xamante ne rek mën na ko wane comme papier oto bi nga xamante rek doon na ko dawal bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi nga xamante ne daal dinañ koy jot nag ci lañ ko daal di yóbbu rek ca brigade bu an jamono ji nag naam sax doon na def ab intervention waaye yëfi nag mujjul fenn ba ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy addu rek wax ci trafic cocaïne bi nga xamante ne rek nañ ko weer yee ñu génn nouvelle bu neex daal dinay dal nag

Diourbel ab bàyyi ba nëgandiko mu nekk nag dogal boo xamante ne rek niki talaata nag lañ ko confirmé woon mu nekk mbir moo xamante ne chambre d'accusation bi ci jëmi boppam waaye nag arrêt bi nga xamante ne rek defoon nañ ko ci yëf yi ak appel bi nag suivre nañ ko benn yoon ca parquet bu général le quotidien d'information mi ngay daal di xam ne rek que ne am na yeneen yoo xamante ne rek ci yëf yi la ci mel ne Amadou Jam moom nag daal dinañu koy libéré waaye juróomi nit yi nga xamante ne rek arrêté woon nañ leen ci cadre boobu li enquête nga xamante ne rek moom moo keroog bi ñu jàppoon nit ki mois de mais bee ñu génn lu toll ci ñaar fukki kilo ak ñaar cocaïne foofa ca kër ayib ak ca Ngor virage ba naw ni nag am na ci juróom yoo xamante ne rek ñu ngi leen daal di bàyyi ndungu siin ku ci mel ne Sylvain Bathia Mendy mi nga xamante ne rek moom la ñu wax ne moom moo nekk cerveau boobu les réseaux trafic drogue bu ñu démantelé ak ay éléments octrice yi nga xamante ne rek ci frontière sénégalo gambienne la ñu daal di nekk ba tey ci wàllum xibaar bu ñuy jugee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci Cheikh Dieng ak Cheikh Tidiane Dieye seen mbir yi nga xamante ne rek kenn ku ci nekk yaa ngay tuumaal sa morom nag yëf yi daal mel na ne jeexagul ndax nag li nga xamante ne rek moom moo daal di dox euh, ci diggante nag euh, kii di opposant bi ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement di Cheikh Tidiane Dieye nag jamono ji ak ki fi nekkoon directeur général bu office national d'assainissement du Sénégal di ONAS di Cheikh Dieng mel na ne rek seen coow la ba nëgg ni jeexagul ndax ministre bu ñu dénk wàllum assainissement nag daal di nay yéegal yëf fii rek ca kaw ñu sukkandikoo ci les échos mi joxe boobu li xibaar ba tax na nag boobu li xib boobu les sources ma ngay daal di dëgg rek que ne département bi nag fas yéene nañ amal rek ab conférence de presse niki tey nag ci talaata ji ngir indi ay leeral ci dossier accusation yi nga xamante ne rek daal di nañu koy def mu ñeel guerre ak yeneen ak yeneen nañ nag ñu ngi joxe rendez-vous journalistes yi niki tey bu 15 heures jotee ba tegal 30 minutes fi nga xamante ne rek moom mooy ca sphère ministérielle bu jam ñaajo bu ñu sukkandikoo ci boobu les journal jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche notification yi ngir mën a am yeneen